ko yaatal euh, kon Arfan comme ni ma ko waxee rek ñu commencé waxtaan bi ak entretien bi nga xam ni euh, moom la njiitu réew mi Macky Sall amaloon ni ki démb ak ñenn si suñu ay euh, naataango foofee nag Arfan li fa wax bari na xanaa rek ñu dem point par point njëkkee ko ci fin de mandat bu Macky Sall mu mel ni kon wax ji moom lu mu lëndëm lëndëm lenn moom leer na te mooy Macky Sall nee na à partir du 2 day dem bàyyi ñu ak suñu Sénégal. alors euh, donc xam man euh, pour te dire vrai ami euh, dégul naa euh, religieusement donc euh, Macky Sall démb mhm. donc dans la soirée mais li ma mën diap jàpp hein, li ma à la sortie médiatique bëriwul lenn kese moo leer ci lu mu wax mooy maanaam le 2 avril mhm. dooti moi nekkati mhm. mooy maanaam dafay dem mon l'air leer defe naa loolu moo leer ci bopp sénégalais à part loolu je crois que sénégalais ba léegi xamuñu sax mom lu bëgg wax c'est ça mhm. gis na titre bu 5 euh, TV bu ñu ne clair obscur c'est ça le c'est ça le clair obscur moy mhm. manam wax ba danel ah nit ñi duñu mëna xam exactement li nga bëgg wax à part la date du 2 avril ñu mom lannée, ni que mom, il va pas continuer d'être là mhm. ah, comme président même malgré ça dafa né président mënul dem sans que bàyyi réwmi sans président. effectivement lan la bëgg wax en fait fofu le mais à partir du 2. il faut beneen président soit e fi. exactement le président ne mënul fi nek tant que élection amul. kon lolo jixi jax amna ci voilà jixi jax bobu tubaab loolu lay woyé clair mm-hmm. obscur. Mm-hmm. Mm-hmm. manam boné man damay le 2 avril. Je nek fi sama mandat le 2 avril lay jeex. ñu né la d'accord. nga né le 2 avril da ngay dem mais ci dem bobu nga ne yow do dem bàyyi un poste vacant. moy mhm. manam nga dem bàyyi fi rew sans président. ñun laaj la encore baxam ndax da ngay démissioner nga ne déedéet yow do démissioner mhm. lolu ñëwagul maintenant lan la bëgg wax en fait ci lolu on retient que ni le 2 avril nee na dootul nekkati président day dem maintenant nee tamit du dem sans que Sénégal do am euh, amul président bu lan la bëgg wax fofu xam nga président tamit jappalé wuñu faciliter wuñu ci la communication quand même mm-hmm. man dama yaakaar ni boy communiquer ak askan mm-hmm. yow da nga utiliser da nga wara utiliser les mots adéquats moy mm-hmm. manam pour léral gindi nit ñi léral bop nit ñi que exactement li la bëgg a wax moo ta dégg na tay ben kilifa di wasi suba si té dama and ak ak mom 100 bu muy ne ni que l'entretien waruñu version française mhm. dañ ko wara jël uniquement ci wolof mhm. pour que ñi mën comprendre largement président lan la voilà voilà mhm. français c'est une langue de travail c'est une langue de la France ah, euh, même si euh, nous on l'a hérité, voilà, au temps des colons. Mais nous avons le président bu fekkee dafa bëgg clarifier les choses mhm. dafa faut jël un kocc mooy maanaam mhm. mu wax ah, comme ça Sénégalais yi eh, comprendre et largement lu mu mhm. bëgg Maintenant, <laughs> il y a aujourd'hui un clair obscur, il y a de l'amalgame dans ses propos, tu comprends pas réellement ce qu'il veut dire. Mandamaïdam, damay le 2 avril, au-delà de 2 avril, Nam Damaïdam, mais it il un poste présidentiel vacant fokk mhm. forcé Sénégal à <laughs> am président mhm. maintenant am président il mhm. nga ne tamit doone nit ñi da ngay maintenant quelle voie issue il va prendre lan moo ñu de démissionner mais il du nekkati président le 2 avril mais il faut aussi être président parce que mënul bàyyi un pays pays yi nii sans président Il mu jàppale ñu ci loolu parce qu'on ne comprend pas Maintenant, peut-être bu ñu il a voulu peut-être garder le suspense. ba ñuy le 2 avril. mais man li ma gëm ni que à partir du 2 avril à minuit le président Sénégal le président bu légitime le président légal c'est c'est c'est clair le moom je crois même lui même moom xam parce que constitution la constitution, c'est te constitution mënu ko jalkati te def au-delà de la constitution <laughs> moom xam maintenant euh, comme il l'a dit hein, dinañ xaar ba dialogue bi bu dialogue bi rombé moom peut-être il va nous édifier ci moom lan la nar à part ça peut-être euh, ñun ba léegi ñu ngi ci suspense bi ah démb la ñu yaakaaroon peut-être ni dinañ am tuuti ah lu ñu leer ci maanaam euh, lu ñuy rumandaat mais ba léegi mënuñu am dara malheureusement ami mm-hmm. mais Arfan est-ce que avez aussi sous-entendre que ni euh, mon à partir du 2 euh, bu élection euh, peut-être am ak mais est-ce que vous ak ki président de l'Assemblée nationale. bon constitution constitution prévoir en cas dafa am ay soubassement yu bëri yo xamantene daf ko évoquer mhm. hein, comment faire pour que nguur gi mu tabbi ci loxo président de l'Assemblée nationale dafa né mhm. en cas de démission voilà mhm. en cas de décès du président de la République kenn souhaité ko yalla mu gudd euh, gudd fan hein, euh, en cas aussi euh, de comment euh, des incidents majeurs le président n'est pas disponible donc il euh, yor a mi ah, là il y a en attendant le président de l'Assemblée nationale pour un délai de 90 jours mais maintenant trois mois pour mu organiser une élection que la loi prévoir mhm. Maintenant, euh, concernant lui, euh, Macky on attend son suspense parce qu'il aime garder tellement le peuple dans, le noir, hein, euh, donc euh, en disant que mom dinadem, mais doudem sans que président et élire président. mais ñu ne ko joxuñu date nee na mu du mën a jox date tant que defuñu seen dialogue boobu bu ñuy bu ñuy bu ñuy nekk di nas euh, pour le di et le mardi. Mm-hmm. loolu du dialogue jaloog kenn du ko def ci deux jours. ah loolu loolu leneen la beneen aspect la mais man li ma mën a concevoir ni que. à partir du 2 avril, il sera plus président au Sénégal. Ça, c'est sûr. Ça, il faut même pas badiner là-dessus. Lolo dafa l'air nañ midi, ami. Hein? À moins que moi, moi, mu prévoir Mais man me à partir du 2 avril euh, voilà, mënul nek président, mais aussi de me gëm que le 2 avril élection xaj mën nañu def premier tour balaa le 2 avril mais en cas d'éventuel de deuxième tour nous nañu mën nañu romb 2 avril Tout ñu ñu loolu yàqul dara lii ñi lu ñuy bañ mooy maanaam ñu yóbbu élection yi ba ñoom lu bëgg mooy ay 3 mois ay euh, le 15 euh, décembre Nous avons nit ñi mënuñ concevoir parce que tey le mhm. journal mu mhm. titré que ni euh, Macky Sall li mu bëgg mooy ñu def élection yi 3 mois après pour Ousmane Sonko ak Karim Wade mën bokk. non non non là man je ne suis pas d'accord Tu sais, processus bu ñu enclenché. Mhm. nee naa la ami xam nga mbirum élection mbirum élection euh, dafa dafa xaw doy war ami parce que euh, nguur yalla mo koy joxe gis nga nguur bo boo gëmee ni yalla moy joxe nguur mhm. da ngay gëm ni que élection niñ ko bëggee mhm. du non lay démé mbirum élection même buñu recommencer waté à zéro ami taxul ñëpp bokk lolu moy élection même si nous recommencer recommencé à zéro day avons forcé les candidats à recaler. mais c'est ça la réalité mhm. élection présidentielle yow da nga que a gëm Sénégal un petit pays comme le Sénégal bu def millions de Sénégalais da nga gëm que avec le nombre de candidats à ñu amoon dès le départ les 225 et quelques candidats yow da nga a gëm ni que ñooñu yëpp mën nañu dem ci élection présidentielle. contrairement lu nous nii ni nañu recommencer waat le processus. comment on peut recommencer le processus électoral. Mhm. te ñu le conseil constitutionnel à son article 34. Mhm. faut modifier euh, comment les candidats les 20 candidats parce qu'il y a un candidat une candidate qui a démissionné. qui a mhm. euh, retiré sa candidature nous invoqué l'article 34 de la constitution du code électoral nous modifier le désormais la désormais liste à 19 mais conséquence moi, je gën moom moo élection day am il va maintenir le nombre de candidats boo xamante moom la am dès le départ maintenant quand des gens disent que oui war nañu euh, euh, euh, may président da wala war nañu dem ci dialogue comme ça il y a bokk mais mhm. ami du loolu la ñu départ ñëpp mëna a bokk mhm. <laughs> je crois que loolu la ñu départ dialogue bu bu premier dialogue bi lan lañ doon wax dialogue la ñu woote pour ñëpp mën a bokk. du loolu la ñu waxoon mm-hmm. est-ce que ñëpp bokk nañu. pourtant am nañu dialogue yoon hein, bokkuñu. Mm-hmm. <laughs> Karim Wade la mm-hmm. am nañu dialogue dialogue bi ça sera pareil même bu ñu tëggaatee mbir mi ñëpp dem ci dialogue taxul ñëpp mënuñu bokk. ñoom lu wax ni c'est des alibis qu'ils cherchent pour décaler l'élection mënul nekk. nee naa la wéy béy wéy béy parce que jamono bii nii le processus a été déclenché jamono bii nii ñun xamal lan bu ñu naree élection yi la ñuy wax. nañuy def tout pour ñu am ja pour ñu am date bu ñuy demee ci élection mais nakul tëggaat eh, élection eh, kii comment le processus invoqué encore beneen corps électoral. Mhm. loolu mënul am. Mhm. loolu mënul am. loolu sax moo ñuy indi eh, si li nga xam ni moo di dialogue bi nga xam ni moom Macky Sall nee na dialogue boobu rek moom moo mën a nekk loo xam ni mooy génnee Sénégal ci situation bi ñu nekk parce que si dialogue bi si la ñu bëgg a waxtaanee mook acteurs politiques yi ñi nga xam ni ñoom ñoo ko seq yépp pour ñu waxtaan si pour naka xam exactement ana ban date di élection non non xam élections euh, élection kenn du ko dialogue <laughs> c'est ça la réalité <laughs> mbirum élection kenn du ko dialogue élection dafa am lu ko mhm. constitution moko et le conseil constitutionnel bo gisee ñu conseil constitutionnel c'est des juges constitutionnels c'est des arbitres constitutionnels ñoo fa nekk ñoom ñooy élection bi sukkandikoo ci constitution bi mais waxuma acteur dialogue acteur dialogue <laughs> acteur dialogue acteur dialogue dafa mën organiser élection. acteur dialogue mënu non non non mënul jal xama xama xama tamit xama tamit fokk ñu waxante dëgg hmm. gis nga dialogue ñu fay dem yëpp ku nekk day plaider pour son compte hmm. moo tax du ñu am dialogue bu baax bu ñu demee foofu solo moom lu mu wax démb acteurs yu mu convoquer les les les les candidats spoliés les candidats spoliés bu ñu demee palais la niwa ñuy wax nañu comme ça ñun ñu mën a ils sont ils seront égoïstes quelque part. parce que ñoom dañoo bëgg a maintenant le le le FC 20 le FC euh, comment dirais-je euh, boo xamante ne créer le FC xaw 25 25. boo xamante ne créer. Mhm.

comme ça ñu xajal élection bi mëna xaj man loolu la japp ni que ñom kessé la convoqué à part ñom peut-être la Sénat la direction générale des élections et peut-être euh, euh, euh, comment le garde des Sceaux Sidiki Kaba bo xamante le ministre de l'intérieur mais gisuma ni que nous dañuy dem convoquer des candidats spoliés la société civile convoquer des forces vives comme il l'a dit c'est quoi des forces vives de la nation <laughs> pour une élection bo xamante dañ la né date ñu date date xanaa date jafew man suñ ma joxee man arfa sa dina dina kale date pour élection yi. date date non ñun ne la date mo la desee nga ne da ngay woote dialogue pour convoquer des acteurs vifs de la nation les candidats les acteurs pour la date. est-ce que bëggul tamit ñi nga xamné non non non non non Dédé, Dédé, Dédé. ami xam dañuy né euh, le conseil concernant man tabit euh, d'une part mon moñu togn le conseil constitutionnel dafa ñuy togn deug deug deug deug mo ñu togn xam nga boy abrogé boy abrogé loi boy conseil conseil boy faxas décret le décret bu yees bi bo xamantene le président la l'a fait pour